o Aliou Sow euh, donc euh, ñu tàmbale ak euh, li nga xamante ne moo dal suñ kaw di incendie bi bien évidemment moom lañ nar tàmbalee tàmbale ci point boobu jox ci abi ku ne Cheikh Tidiane Gomis nga gis li nga xamante ne moom mooy incendie bi am Walfadjri ñëpp nakarlu ko bay sant yàlla ba nga xamante ne benn perte humaine amu ci donc bu ñu nee perte matérielle donc lu ñu mën a indiwaat la bakkan moom dara mënu ko remplacer sant yàlla la di d'abord ko jàngatee. waaw jërëjëf fi nga daanelee rek laay wax mooy euh, di sant yàlla ba nga xam ne bi li dal suñu kaw euh, maanaam muy lakk-lakk bi. ba yàq yàq lëpp foofu ñu wax ko mu leer. daa yàq lépp jumtuwaay bi ñuy liggéeyee. Mhm. gis nga balaa ngay xam lu mu yàq nga ñëw fi ba xool. Des murs encore fumants. Les stigmates de l'intensité des flammes dévastatrices sont visibles. Euh, Le feu s'est déclaré vers les ah, coups de 20 heures. Les studios de Walf sont consumés. L'incendie s'est propagé de manière fulgurante. Nous avons été alertés à 20 heures. Parce que bu nekkoon affaire bu ndaw. tey ñu commencé sunu émission ci télé bi. waaw ñu commencé sunu émission. ci euh, ci rajo bi. bien sûr kon nga xam ne que na. dafa yàqu normal yàqu li yàqu dafa bare. te li yàqu pour remplacer ko du noonu. dégg na di ci sant yàlla nag ba nga xam ne bakkan rotu ci kenn gaañuwu ci ñu ngi ci sant yàlla. il est à signaler qu'on a eu quand même l'accessibilité du local moo yàqu. on a été obligé de créer une trouée au niveau du mur pour pouvoir accéder à l'intérieur du local. Des autorités se sont déplacées pour constater yàqu complètement amatul noonu doo dégg la ma laa li ñuy def nii dañ ko def nii provisoire nii nii pour mun a rek dégg nga ak sunu téléspectateurs yi ak sunu auditeurs yi waaye len laa lay wax mooy lii yàqu les dégâts et apporter leur soutien au groupe Walfadjri. Walf nag du Walf du kër gu ndaw de ci presse. Mhm. Ah. Walf du kër gu ndaw ci presse nañu waxante dëgg. daf fi fekkee lu lépp fekkee na ko fi première alternance du Sénégal Walf fekkee na ko te liggéey na ci liggéey bu am solo mhm. kon nag tey jii. waruñu ko jëlee nii eh, waaye nii rek di ñu xool nii parce que du affaire bi du affaire u Cheikh Niass déedéet ñun la. absolument ñun la affaire bi du Cheikh Niass du du du du Moussa ñun la ñun ñii la ñun ñun ñun ñii sunu ñun sunu sutura moo ci nekk. parce que ñun ñëpp bu ñu demee suñu waa ñu ngi naan ah mas parce que ñoom dañoo tiit comme ñun ni ñu tiitee combien de personnes ñooy liggéey fii à Walfadjri ñoo ñooñu ñëpp tey jii jaaxle parce que lii bu yàqoo ñun ñooy ñàkk suñu sutura kon nag dañu am droit tey jii ñu wax du question ay nii dégg solidarité de presse bi tamit soxla naa ko solidarité corporation bu ko solidarité corporation bi. waaw am nag ñenn rek ñu ñu gisagum. dañoo doo dégg li ma la wax parce que man non li may gis. nii neexuma dafa des daal man neexuma dama ne. dama ne neexuma on est solidaire restons solidaires la presse tey jii bu amoon keneen ku mu dal nii man noonu laay jaaxle samay gars yi. samay confrères yi ñu ngi minimiser wala di saboter wala di xasaale. non tamit ay xas lan moo fi am. ay xas wala di jéem a di wax ne on fait du n'importe quoi. dañoo bëgg notre lan la ñuy xas. voilà lan la ñuy xas non non c'est que problème du ay gis nga xoolal du ay affaire xas. Mm-hmm. lan la c'est bu ñu xool c'est bu ñu demee ba xool benn non dañuy xool Walfadjri ñi fiy liggéey c'est ce qui travaille ici ñii liggéey ñun la ñun ñun ñi di liggéey pour askan wi. liggéeyuñu pour kenn bu ñuy wax dañuy wax pour askan wi waxuñu pour benn nit dañuy wax pour askan wi kon nag tey jii il est bon man maa ko wax dama ne il est normal et il est légitime à ce que l'État du Sénégal. moom mu ñëw maa jàpp ñun ñii liggéeykat yi ñun ñii liggéeykat yi fii lañ fi attaqué wal fajri Ablaye Wade lan la def rappelez-vous kon nag dama ne il faut que l'État parce que tey ji bu keneen bu doon beneen média la noonu laa koy waxee absolument du man rek du ñun rek il faut que l'État du Sénégal xool ñu gëstu ñu xool nu parce que sinon nous on perd nous on risque de perdre notre suñu suñu sutura ça fait mal et la solidarité corporelle euh, bu euh, euh, bu métier bi gars yi xoolaat leen nañ ci jàpp mhm. parce que ëllëg mhm. ñu ñoo bokkal liggéey bi mhm. ñoo bokkal liggéey bii d'accord no solo Cheikh Tidiane Gomis Théodore lakk bi ñu dégg ci lu nekk ah? waaw ku nekk euh, ak ni nga xamante ne moom nga ko mais gis nañ ne CAPS di ci def benn hmm. benn communiqué gis nañ loolu ak hmm. Ibrahima sa Faye waaw Ibrahima Lissa Faye muy appelé hmm. pour soutien pour pour Walfadjri parce que tamit loo xam ne lu metti la au-delà de ça euh, y a une c'est par euh, li ñuy wax parce que état bi moo appelé pour ne woon que Mm-hmm. aujourd'hui on doit sauvegarder les emplois mm-hmm. sauvegarder les emplois nag mooy genre yi mm-hmm. parce que c'est un sinistre boo xam ne ne kii sinistre mun nga ko xëy na di nga prévention mais am na ay sinistre yoo xam ne xamuloo c'est inhérent comme nag dafa ñëw te xam na ne fu mu toll nii y de des emplois qui sont menacés parce que tamit su télé bi produirul euh, euh, par investi amul investissement amul rentabilité mm. pour qui mm. day am répercussion mm-hmm. et les premiers touchés en général mm-hmm. dans un investissement ce sont les employés tout à fait donc aujourd'hui war na am benn espèce de sursaut patriotique état bi ak élan de solidarité am na ay structures yu muy am mm-hmm. mais rien que leen na euh, nu mu tudd seen fonds politique yi mën na ñëw dimbale dimbale kër gi euh, c'est pas une question de truc lii lañ lii la ñuy soxla nag fonds politique yi contrairement ak fonds politique ni léeg-léeg ni ñu koy utiliser xam nga léeg-léeg dañ koy utiliser mooy nekkal ma fii ci ci naaj bi mhm. ah yow tamit ma nekkal la si kër gi mais nag je crois que y pas plus bii moo gën a patriotique moo gën a patriote mhm. fonds politique yi que bii parce que c'est un sinistre boo xam ne kenn xaar xalaatu ko mhm. détruire le matériel te aujourd'hui sans le matériel les gens ne peuvent pas travailler pour avoir faire des résultats parce que il faut des moyens pour faire des résultats et si tu n'as pas de moyens mhm. de faux résultats tu peux pas prétendre mhm. gérer ce personnel mhm. donc c'est l'urgence qu'on euh, c'est le cri du cœur qu'on à l'appel du Séné euh, à l'État du Sénégal pour que ñëw mu ñëw jàppale groupe bi et aussi les bonnes volontés yi nga xam ne am na ñoo xam ne tamit euh, ce sont des bonnes volontés ñu ñëw jàppale kër gi pour que vraiment que euh, yëf yi mën a demaat parce que tamit metti na mhm. waaw loolu laa laa mën nuyu wax. nga ci am na donc sa invité donc euh, comment s'appelle encore waaw noo noo noo ko xalaatee ni nga gisee lakk-lakk bi touché Walfadjri. waaw waa di massaw mhm. di wone ni lakk-lakk bi bi ma ñëwee li ñu ma njëkk a def mooy yéegal ma ci kaw. Mhm. vraiment sama diggante ak yàlla. bi ma yéegee ci kaw dama fekk lépp lakk ba nekk doom. Euh, may may fàttali nag ni réew mi ñi nga xamante ni bi ñoo ko yor seen euh, weer ak fukki fan sax manqué na kon dañuy doog a waaye ñoom xam nañ ni ñoom ndimbal ak seen loxo war naa dem ci sénégalais yëpp waxuma laa Walfadjri nga xam ne dafa nekk benn pàcc ci senegal boo xam ni senegal yëpp lay sarwi te Walfadjri naka jëkk état bu fi mës a taxaw su fekkee da ngaa nekk ci lu arrangé wul askan wi moom day opposé wu wax dëgg fi sabilillah ni lii duma ànd ak ñoom ndax alal ndax neexal damay ànd ak yàlla te ma ànd ak dëgg ba gis nga li fi xew yëpp euh, ñun ñëpp fi la fekk nangu nañ fi licence am mm-hmm. tëj nañ ko fi defe naa ñaari yoon mm-hmm. jàpp nañ seeni journaliste tëj te defe naa ña àndoon ak presse yi àndoon ak état di bëgg di wax la état di bëgg mhm. euh, di ànd ak état naan ko yaa nekk ci dëgg mhm. defe naa yooyu aguñ ca mhm. te am na yeneen njariñ yoo xam ni presse yooyu doon nañ ko am ci état waaye wal faj amu ko woon kon wal fajiri ki mu àndaloon mooy yàlla la àndaloon ak dëgg kon nag ba yàlla def changement am ñii dañuy doog a toog xam naa xam nga ku toog matagul sax un mois dix jours mais ñoom li ma jàpp mooy ni ma xamee président Bassirou Diomaye Faye ci mbaaxam ci dëggoom ma xamee ni président ma xamee ni premier ministre monsieur Ousmane Sonko. ci ci mbaaxam ci yërëm nit ci nungoo sonn ci nit parce que it bu leen fàttali ni bu leen fàtte ni président Ousmane Sonko dafa jëloon boppam jox ko Sénégalais yi bàyyi njabootam bàyyi soxnaam waajuram bu góor làqu na yàlla na ko yàlla jéggal mu bàyyi yaayam fop bakkanam jox sénégalais ni bu ma dundee baax na su ma deet ñu xam ne ci dëgg laa dee kon kooku xam na lu jaadu te xam na dëgg te kon du ñu tàyyi ci lancé ko appel en tant que mouvement transporteur patriote di ko wax ni ko xam naa yitte yi bëri na mhm. liggéey bi bëri na waaye lu mu mën ci jàppalewal faj fajri gaaw gaaw wallu ko wallu ko kuy lab Mhm. balaa moo gën a ñaaw daal. te ragal naa ragal naa mu ngi ci moom xëy na dafa jàpp rek. Mhm. mais ku baax ku tëdd la. maa ngi leen di baal wax di leen baal. d' accord jërëjëf euh, ah. Aliou Sow ñu dundandoo yi nga xamante ne mooy incendie bi bi dal suñ kaw ci Walfadjri. waaw mu doon tiis. Mhm. Euh, bu metti euh, dalul nag une société de presse bu tuuti. Walfadjri. la dal tey comme ni ko sama sang bi waxee ku yéeg ci kaw xool li fa nekk de toute façon le ministre de la communication jaar na fi ak yeneen autorité de ce pays di xam ni yàqutee fi bari na si ñun waaye bariwul ci état moo taxoon ci yenn situation yi responsabilité euh, état du Sénégal mooy mu exécuté wu dans le sens de sauver justement Walfadjri parce que bu problème amee Walf comme ni ko Cheikh Diagne Gomis waxee mhm. du Cheikh Niass mooy perte ñuy perte mooy les employés de Walf te ñooñu dañoo war a continuer di liggéey normalement donc li état war a def dans les plus brefs délais te sang bi nekk ci transporteur patriote yi liggéey bi war na mën a gaaw immédiatement ndimbal mi war na mën a gaaw Théodore Semedo sànni na ko sànq du affaire dañuy doog a ñëw bu tàkk-tàkk amoon ci yeneen dëkk fii léegi wala yeneen i béréb ci réew mi am na ay justement plan d'urgence wala ay décision d'urgence yoo xam ne war nañ ko mën a def pour lijjanti problème bi rapidement mhm. d'abord parce que état day am xaalis boo xam ne daf koy garder pour genre ay catastrophe mais bi état bu bees de boo xamante ne ba mu installé woo euh, c'est à euh, Euh, un mois quelques oui, jours oui. comme ni ko souligné. je vous assure Fatou d'une chose. est-ce que loolu aussi mënul tax euh, moo xaw a. je vous je vous assure continuité dafa am. waaw waaw kay foofu laa bëgg a ñëw continuité dafa am. xoolal gis nga loolu ay waxu tappale mais ça parce que mën naa la jox kaaw biennale bi nga xamante dañ ko war a organiser ci mois de mai bi attendez s'il vous plaît mois de mai bi lañ waroon organiser biennale bi mais mujjuñ koo def pourquoi parce que li ñu fekk ci budget mais loolu xam nga la moo normal ñu ko fi bàyyiwu ñoom peut ñoo ko fi ñoo waroon bàyyi somme boobu waroon nañoo prévoir loolu mais pas li ñu bees yi parce que ñoo waroon prévoir ni lii war na am parce que li mu wax baax na. Euh, gis nga euh, gis nga état. waa yaay lijjanti. Mhm. yaay toppatoo yaay wuti. te mhm. am euh, dégg nga. yaay ut solution. Mhm. boo ñëwee ne kat fekk benn affaire yow yow ñu fal la yow yaay ut solution dangay ngay ut solution. mais boo ñëwee fekkoo dara tamit mais mais Fatou est-ce que fan lañu war a yëpp dëgg la mais je dire que. ba tey ñoom dañu fi fekk est-ce que fekk nañ fi loo xamante ne ak ak li nga xamante ne mooy dette bi. tout cela lan lañ fekk comme budget est-ce que man na doxal une biennale and une biennale et la régularisation par exemple de certains. Euh, euh, euh, fonctionnaire. waaw du du ministère de la. De, des a est-ce que de dafa ma comparaison. teewul soo demee ñoom xool nañ seen priorité. xam nañ ne lii nekkul priorité pour def biennale peut-être lii. mais lii cas bi endettement bi am tout cela man ci côté boobu laay waxee tamit. voilà ci côté boobu euh, wax d'accord Fatou. Uh-huh. Euh, bi mu fi jógee. am na lu des ci fonds spéciaux yi. fonds waaw mooy fonds politique yi. d'accord. fonds yi. Mmh. tourne autour de entre dix pour le palais pour la présidence de la république. Mmh. pour rek moo war la ni mbir mi yomb na. yomb na bu def nañ ko suñu si Fatou te Fatou je vous ah, assure que man du ma wax loo xam ne amul te naa la expliquer pourquoi. d'accord allez euh, ça tourne entre dix ak onze milliards milliards de francs CFA chaque année. Hmm. at bi. Hmm. fan la ñu toll ci at bi tey jii nii. on au mois d' avril wala voilà. mai début mai donc admettons que ni moitié fonds politique yi utiliser nañ ko nguur gi passé utiliser nañ ko parce que Macky Sall buy dem du ko yóbbaale daf koy bàyyi foofu hmm. loolu ci. passation de service yi lay amee te li may wax nii xam nañ ni dëgg la donc Bassirou Diomaye Faye bi muy ñëw bi muy dugg pale nee nañ ko ak yeneen ak yeneen yu ñuy wax waaye pour ce cas ci hmm. leer na ni Macky Sall bàyyi na fi alal ñaata la exactement munu koo lekk moitié bi wala sax bu lekkoon plus de la moitié sax des na au moins le tiers pour la fin de l'année te amul ndax fonds spéciaux dafa am lu muy jëriñ loolu ça concerne la présidence de la république la primature Sidiki Kaba bi muy dem moom normalement ci début d'année bi ak léegi war na téye bi muy dem war na ñoom dañuy téye normalement sept autour de sept milliards de francs fa comme ay fonds spéciaux au niveau de la primature bu lekkee moitié bi utiliser ko pour yeneen ñoom ñoo xam des na lu bon bon bon trois milliards tey jii nii mm-hmm. on est en de réfectionner la maison dot mooy maison de dot quoi dot d apostrophe au accent e. mm-hmm. bi nga xam ne moom moo nekk en face euh, hôpital Le Dantec mm-hmm. pour Ousmane ko dem dëkki fa ak njabootam pour gën a mën a yombal liggéeyam pour éviter les embouteillages déglu leen baax li ma leen di wax. c'est une révélation ah. kii Fatou Fatou man du ma wax lu amul. Hmm. dama lay bëgg a wax rek ni. loolu xam nga am nañu benn cent millions. wala benn deux cent bu ñu war a mën a jox Walfadjri pour mu liggéey parce que loolu euh, nécessité impérieuse la maanaam. Euh, euh, euh, kii la ni nga koy waxatee. <coughs> Euh, comment dire urgence day ah, mel ni c'est ah? day mel ni c'est une exigence de notre part. comme ni ñuy wax non non kii est-ce que non man daay joxe sama xalaat rek. bu fekkee ne ñaan wallaay ñu bàyyi xoolal. ñaan non damay joxe sama xalaat rek réflexe la quoi. bu doon keneen la dal. li may wax nii wallahi j'aurais la même réaction bu doon TFM la dal wala 2STV bi. parce que média la. média quatrième pouvoir la. dégg nga média ci démocratie. te dafa participer ci démocratie wu Sénégal. Walf du Walf du kër gu ndaw. oui pour man dinañ ko dinañ ko appuyer sûrement. bu nekkoon yeneen dëkk bu nekkoon France. Mm-hmm. non bu nekkoon France et boobu euh, kii euh, kii boobu fii euh, kii woon amoon problème mooy kii wu boobu. merci. Mm-hmm. mais ñooñu dañ leen. état dafa ñëw. da ngay def boo ko defee ko wax rapidement. parce que du lu mën a xaar. xool gis nga Fatou ah, rek mën na ko régler man waxuma dara man xam nga leen rek laa wax man dama ne. bu fekkee ni man xam la laa mënul dégg. Mm-hmm. ñu ne ma urgence amul ñu ngi doog a ñëw ak yooyu loolu il faut que gars yi ñu génne ko ci seen bopp. Cheikh Diallo Gueye wax na ko léegi l'état mais bu fekkee da ngaa fi non bu leen neexee ils sont pas obligés de le amul benn obligation loolu élégance la. ak ak ak ak euh, kii euh, euh, preuve de responsabilité en tant que kilifa. kër gi am lu ci yàqu benn nekk am problème nga war a lijjanti néeg bi parce que xale yi amatuñu ci lal bu ñu tëdd. Mhm. nga lijjanti ko dem jëndi beneen lal wala nga xaar leen xale yi tëdd leen ci suuf en attendant ñu dem jëndi lal bés bu ñu amee nañ ko lijjanti mais moment boobu ngay naan jëndi lal yow yaa ngi dawal sa oto yaa ngi ciy def ay yaa ngi siy def carburant yaa ngi dem doxi yeneen i soxla. man waxuma dara dama joxe sama xalaat kese. Mhm. man su ma nekkoon seen conseiller. Mhm. jege leen daan ne lii kenn du ko xaar. lii nañ ko réfectionné parce que xaalis moo koy lijjanti comme ñun xaalis bi nag dafa am xaalis boo xam ne ñun dañ ko téye en tant que président en tant que premier ministre te wax naa la xaalis boobu ñu yor te gëm naa ni man xaalis boobu mi ngi fa gëm naa ko ñoo Bassirou Diomaye Faye nee naa la maison de l'hôte bi président Bassirou Diomaye Faye non ma yeggali sëñ bi ba waaw non Bassirou Diomaye Faye wax nga ko ñaari yoon Bassirou Diomaye Faye la woon ba mu nekkee impôt domaine Bassirou Diomaye Faye la woon ba mu nekkee Pastef tey ci tey da ngay wax président Bassirou Diomaye Faye loolu laa bëgg nga di ko wax. président man président lay wax sax. non nga wax ñaari yoon Bassirou Diomaye Faye. non bi xam naa dama juum rek. kon juum nga ñaari yoon. président. mais mais mais mais juum cinquante millions de fois yéen ci Macky Sall. ak Macky Sall Macky Sall Macky Sall doon def ci réew mi. waaw kon jarul woon nekkul woon mérité woon yow neexut mérité wu ko. mérité woon ñu koy loolu xoolal. loolu xam fal ko. non non xam nga li yow ma ne Macky Sall. déedéet non attends uy ma uy ma. Birane Birane Birane boobu daal ma na Birane sa wax bi jekkul. waaw d'accord naa sa wax bi jékku waaw d'accord naa mais d'accord naa mais moom ni mu waxee. quel d'accord avec d'accord naa ci ak yow. mais dama wax bi doo loolu sax wax bi doo loolu. waaye man ku la ne damaa juum kay koo xam ne dañ ko jox réew. réew bi bu ñu ko joxee léegi matut un mois dix jours. sëñ bi xamoo nguur non waaw ndànk rek da waxoon man. dama boo xamoon nguur xam man maa la jox ay exemple ne la ñoom xamal ci wax sa xalaat li nga xalaat keneen moom tamit am na a fàttali dama la ne ñoom laa wax am na xaalis boo xam ne mag Sall téye na ko fi xaalis boobu pour catastrophe bu amee ci réew mi wala ay problème yu urgent dañ koy lijjanti muy Walfo muy keneen même bu dul sax société de presse muy feneen foo xam ne dafa am urgence comme ay Dakar nga jël foofu yooyu foofu ngay dugal xaalis yaa ngi dégg ma ne la man lii lijjanti Walfadjri nii man du ma technicien du ma dara hmm. man waxuma loolu sama xalaat rek la imposé wu ma dara nag hmm. waaye man damaa yërëm xale boo xam ne Cheikh Niass la tudd mu war a sauver Walfadjri war a essayer def lu bàyyam gën a def te am waaw déet non moom waaw déet non Cheikh mooy moom mooy représenté Walfadjri waaw mais d'accord moom rek liggéeyu fi am na yow daf dafay liggéey non xam nga responsabilité Cheikh Niass ci biir Walfadjri du sama responsable du responsable Cheikh Diagne Gomis li ci responsabilité Moussa Diop du sama responsabilité quand même ñoom stress bi ñu mën a fi ñu mën a toll ci stress pour régler waat problème li nga xam ne yàqu na fi te yow mi yëg ci kaw gis nga ko mais dafa waxuma semaine man xam nga man non Fatou na am lu non xam nga yàlla dafa def ni man aussi xam nga man li may wax ni parce que un peu xam naa tamit état nu muy fonctionner théoriquement xam naa ko bu ma taxawee ñeme taxaw ci télé ne ñoom diw ci at bi am nañu onze milliards te Macky Sall buy dem li ci des loolu Bassirou na li may wax Sidiki Kaba bi am na lu mu bàyyi Ousmane Sonko ci ay wecc loolu nga gis Ari mais keneen mu ngay gis dama ne loolooy dëgg wala boog ñeme nañ ma taxaw ne ma bi ñuy dem Macky Sall bi muy dem fonds politique yëpp la yóbbaale onze milliards yëpp la yóbbaale kenn xamul lu ci lu ci xew euh, Sidiki Kaba bi muy dem lépp la yóbbaale man maa la ne man Alioune Sow ne xaalis boobu am na lu des man maa la ne xaalis boobu te bu buñ ma waxoon tey moitié bi ñoom Macky Sall na ko fi moitié bi Sidiki Kaba bàyyi na ko la primature du ma bett te Sidiki Kaba am na yoo xam ne ci voté nañ ko ko euh, Ousmane Sow euh, nu mu tudd le président Diomaye Faye moom bàyyi nañ ko 11 au moins autour de 10 milliards léegi 10 milliards yi Macky yóbbul lépp. mi am na lu mu fa bàyyi léegi nag ñoom ñi ngi lijjanti ay soxla mais Bassirou Diomaye Faye mi ngi fan la dëkk. ak assemblée nationale de. non non ak assemblée nationale dama ne. ak ak conseil ak conseil économique social environnemental ak yeneen yoo xam ne amuñu temps di ko fi expliquer foo xam ne ay niche la pour récupérer de l' argent pour les urgences. moi je dis juste une chose sëriñ bi Bassirou Diomaye Faye président Bassirou Diomaye Faye xam fan hmm. mais Méridien la dëkk euh, King Fahd la dëkk. mais xam nga ki nga Fapal ñaata la ñuy fay. benn déglu ma rek ñaari dëkku non man xam nga aussi. man damay wax rek man ne la ñaari dëkku ñaari dëkku. Hmm. waxuma pour ñu defal ko Walf ils ont nañ def lu leen neex man li ma xalaat rek laa wax bu ñu ko ko defee la mooy li gën ndax Walf pour employé la pour Sénégal la waaye ñaari dëkkuwaayu ñaari journée Bassirou Diomaye Faye ci King Fahd Palace ñaari journée mu mu fay réglé na problème Walf ba tëdd ñu tëdd di jaaxal. di di tëdd sabar mais nag foofu nag dafa am suite présidentielle. dafa lay wax rek surtout Alioune Seck foofu dafa am suite présidentielle bu ñu réservé boo xam ne l' état du du ci du ko du ko fay du ko fay dafa am suite présidentielle boo xam ne c' est prévu depuis euh, euh, président du ko fay. moom ñaari fan bu dee non loolu. dama ne xoolal xaaral ma expliquer dama am suite présidentielle. d' accord boo xam du ko du ko fay du ko fay pour président bi bu bëggee dëkk foofu. du ko fay waaye président bi war a ñëw pour liggéey foofu parce que fa lay fanaan day yóbbaale ay dossier day am ay collaborateur day am ay nit yoo xam ne dañuy nekk ci watam di occuper ay yeneen i suite yoo xam ne sóoraale wuñ ko woon pour loolu parce que euh, King Fahd Palace defuñu ko pour que le président di dem di liggéey foofu defuñu ko fa bu ñu ko fa bu fa amee c'est parce que exceptionnellement dañuy aménager King Fahd Palace pour le président de la République qui ne pas n'importe qui donc suite présidentielle boobu c'est limité ci xalaat xam nga lu tax parce que loolu c'est pour que juste rek mu ñëw di noppalu foofu wala mu mu am ko sax un président bu ñëw mu jox ko ko abal ko ko pour mu dem dëkk foofu waaye pour mu ñëw di fa liggéey parce que Bassirou Diomaye Faye mi nga fa depuis un an depuis un an un mois j'allais dire. non mais man su ma gisee président Macky Sall yàgg na fa dem euh, di fa nekk président Macky Sall. ne kuy dem di liggéey parce que lay fanaan bi muy nekkee gis nañu animal jim euh, excusez-moi loolu du problème pour man de ñu animal jim mais wax waa ni man maay wax pour ngeen xam ni lii mën na lijjantiw xam nga débat tamit li ci gën a baax mooy ma sœur non ku nekk dafay wax ku nekk dafa wax boo jëm man rek li nga fi coupé nag mais c'est normal li may wax non déet parce que waaw boo paree dese ñëw mais c'est normal waaw bàyyi ko mu mais xam nga lu tax xam nga lu tax xam nga lu tax parce que li may wax ne dafa suscité débat parce que man coupé wala xam nga bi nga waxee da nga wax ba pare yëpp wax ba ñu pare waaw mais man gën a bëri que li wax non déet xam nga mu gën a bëri temps moo bëri mais gënul bëri xam nga mu gën a temps parce que ci diggante bi ay nit dañu wax Cheikh Diallo Gomis waxaat na ma doon waxee donc a yokk yow tamit dugaat nañ la Cheikh Diallo Gomis nañ ko waaye au moins sax man ma yeggali waaw waaw ah, te bu boobaa tamit temps bi gën a gudd. parce que wax nañ ci c'est normal moi je dis juste une chose. ñaari fan te man li ma wax du dañ. dama ne ñaari fan laa wax ñaari fan. ñaari fan wu méridien président. bu président de la république waxuma suite président. mais nangu nga ne am na ay partisans Anibal Jim ubbi na benn cagnotte pour jàppale Walfadjri te Diop yëpp ci même camp la. mais c'est extraordinaire. pourquoi non mais j'ai dit j'ai dit c'est c'est très bien bu leen ah, neexee. mais Anibal ko dalee keneen aussi na bu dalee beneen société beneen société de presse wala beneen beneen journal wala yooyu nag ñu ko ko defal mhm. booy solidaire da ngay solidaire ñëpp mhm. parce que boo amee faralaate day mel dafa am leen lu muy nuru mhm. parce man am naa lu ma ci njort ah non nañ ko non dama lay wax rek non man ah, bu dalee keneen aussi nañu def la même chose man foofu bu ma xamee compte man dinaa si man bu amee bu amee bu ma xamee compte bi man man naa si dugal sama xaalis te dinaa wax ñaata laa si dugal su ma neexee mais si le problème il est pas là le problème xam mooy lan mooy dama ne du Sénégal fu Hannibal Djimé mën a décider loolu état du Sénégal war ko mën a def war ko mën a njëkk def aussi et c' possible j'aurais été à la place de Ousmane Sonko wala Bassirou Diomaye Faye je vous assure d'une chose je débat man maay débourser 200 millions teg ko ci loxo Walfadjri xam nga lu tax pour dimbali leen la parce que dimbali parce que chômage bi dafa métti y' a beaucoup yàqu fii. xoolal passé na 200 xam nga man xam nga man du ma xam maa koy wax sànq du ma technicien. man maay évaluer nii rek parce que affaire ah, yi c'est pas mon truc. yaa ngi dégg mais je vous assure d'une chose. Ah, xoolal ba ne la na laa wax. Mm-hmm. mën nañ ko parce que xoolal état bi du perte mukk am na ay sociétés yoo xam ne boo leen lijjantee ci réew mi mais bu fekkee ay société ay privé la je a assure euh, Fatou Diouf yow sa bopp ngay liggéeyal parce que fu ñu nekk état di waxee chômage ci réew état moo tax état ci état ngay retourné te ñoom ñoo war a mettre le pays dans des conditions pour que les chefs d' entreprise travailler normalement bu ñu amee problème ñu jéem a na leen def pour dimbali leen du société de presse kese ah mais partout même ci dans le transport bu problème amee ñu dimbali leen te bu transport amoon problème tey jii moom ay problème essence man dinaa xeex pour ñu wàññi pour ñi képp koo xam ne transporteur nga au lieu ñun ñun li ñuy jëndee litre d'essence bi yéen ngeen di ko jëndee la moitié pour yombaleen leen nii. par exemple loolu xel la tey bu su coow amoon. ñii ah. laa koy ñii laa koy defee. ñu bàyyi ko am euh, réplique moom Birame comme kii la transporteur la jiite pare nekk patriote. aussi nekk ci camp bi si sa. waaw moo tax ma ne ko li mu wax dëgg la mais xam nga dëgg gi mu wax. Mhm. man dama bëgg mu bàyyi xel bañ a fàtte que ni que état bu bees mhm. état boo xam ni matul sax un mois dix jours ñoom ba ñu yoree réew mi ak léegi matu ko te bi ñu yoree réew mi ak léegi li ñu fi def lépp teg ko fi ci ci loolu ngay xool te man damaa am lu ma la wax dama ne la man ki yor réew mi xam naa ko xam xolam xam setam te xam naa ni nit kuy dimbalee la te lii bu ko defee defalu ko presse. xamuloo xol euh, ki fiy liggéey. waa Sénégal waaw dama ne xolu Cheikh Niass xamoo ko. ah xolu Cheikh Niass xamoo ko. waaw non man président laa wax de waxaguma Cheikh Niass. moom xolam dafa sedd. moom laa laa wax moo tax man la yow loolu yow ci sa gémmiñ la jógee. man jógewul sama gémmiñ mais dama ne xam man ah, ma xam Cheikh Niass bàyyi mu nekk nii xam nga lan mooy problème waaw may waaw mooy que employé loolu laa nekk ci loolu laa bëgg wax nga dagg ma dama ni la loolu la Cheikh Niass bëgg danga ma dagg dama ni Walfadjri équipe moo fi nekk ay sénégalais lañ di fi liggéey société bi am problème te wal fajiri tey yàlla tere bu arrêté ñi ciy liggéey ñëpp dañuy arrêté su weer dee duñu am lu ñu leen fayee. te ñooñu ay yëpp waa mais ndànk rek. xam nga xool. non xam nga du man man doo wax ba man ma wax li nga bëgg a wax yow man li ma bëgg a wax laay wax dama ni la. Eh, waaw waxuma lu damaa wax loo dara de. non li nga bëgg a wax kay. non déggoo li ma dama ni la lii wal fajiri sax Cheikh Niass moomu ko ñëpp ko moom parce que ki ko créé moom nee na ñëpp ko moom hmm. fii la ñuy waxee lépp loo xam képp koo xam da ngaa bëgg a wax te amoo doole. fii ngay waxee. mur de yaa ngi dégg de. Mhm. fii mooy. patrimoine jeex na. Mhm. moom wax na ni fii ci wal fajiri mooy baatu ñu amul baat. Cheikh Niass nag moom la yàlla def mooy directeur bi moo ko moom bàyyi ma ko créé woon yàlla na yàlla yeesal njëggal ci moom liggéey ci senegal it loo xam ne ñëpp fekke nañ ko. wal fajiri it bu fekkonte ni bii day lekk neexal wala muy liggéeyee neneen kon lii du ko mën na ko bañ a dal. wala bu ko dalee day fekk moom mu man boppam ba man koo régleel boppam mais dama ni féete ci dëgg gi bu dee dafa amul moyen yu mu ko defaree looloo tax parce que nguur gi fi nekkoon yéen xam ngeen ni ku àndul ak moom dooy am ci moom dara mais ku ànd ak moom loo bëgg ñu wax ko def ko loo bëggul ñoom duñ ko def mais ñii nag foog ngeen comprendre que ñoom yëg nañ ko xam nañ wal fajir li muy servi ci Sénégal xam nañ njariñam xam nañ équipe bu toll bi fiy liggéey wal fajir kenn du ko bàyyi mu niil foog njàppale am ci mais yéen it foog ngeen comprendre ni yor réew mi da koy doog yor rek un mois dix jours matu ko weer ak fan rek la yoragun réew mi mais dégg na ko mais nag li xew Walfadjri fekk na mu xew feneen xew feneen xew feneen yéen gis ngeen fi ay suuf yu ñu séddale état bu Sénégal. kii am nangami hectare kii am nangami hectare kii am nangami hectare. loolu bu ñu si tolloon nañ ci waxtaan. yaa ngi may dégg ñëw léegi. loolu problème la dëkk bi ni mu meloon tamit problème la leneen tam problème la transport baa ngi nii problème la. sàmm gi problème la mais dama ni Walfadjri gii nag moom président Bassirou Diomaye Faye moom yëg na ni Walfadjri dafa lakk te li ko war moom ak premier ministre am monsieur Ousmane Sonko ñoom xam nañ ko yàkkamti nag baaxut ñoom dañ leen a jiital dañ leen fàttali ni. wal fajiri kat Sénégal gépp ko moom. ñun dañoo jaaxle. wal fajiri ñëpp ko bokk. ñun dañoo wal fajiri moom mu Sonko moomu nga gis noonu. wal fajiri da cee bokk. président Bassirou Diomaye Diakhar Faye bokk ci wal fajiri wal fajiri du lu kenn moom Sénégal gépp ko moom. waaw moo am na problème lakk na. ñun dem nañ ba ci kaw ba gis lakk gi. ñeneen ñi fi ñëw autorités yi dem nañ ba ci kaw ba gis lakk gi. boo xoolee li ñu bëgg a wax mooy mu gaaw ci ndimbalam yor leen loxoom. pour wal fajiri. merci mën a dellu fa mu nekkoon. Sénégal yëpp di ci bénéfice. parce que it bu dee wax naa la dëgg. ay nit a ngi fi tey dañoo am problème journal. ñoom dañoo dem ba wal fajiri rek lañ defee ni mooy télé. pour ñu sàppe seetaan beneen télé sax problème la. Mhm. te loolu yéen xam ngeen ko man xam naa ko. Mhm. parce fii loo fi jàllale day jàll fépp. am na télé yoo xam ne tey même boo fa demoon émission télé yu néew a koy kii wala a moo gën a bëri kay yi seetaan yeneen presse yi. loolu la ñu wax waxuñu. yaa ngi may dégg de mm-hmm. man nag loolu. ni nga ko waxee ak ni ma koy waxee du dul bokk. lan mooy différence bi. li différence mooy nit boo koy soñ te nga xam ne jàmbaar la gaynde la yaa ngi dégg de boo koy soj boo koy boo koy soj non xam naa ci dara xam naa ci dara nekk de xam naa ci dara biraan teel na biraan teel na xam naa ci dara biraan teel na de teel na de ah, du ma rus de biraan teel na de du ma rus de gëm-gëmam la gis nga Sénégal gii ma ne nga ah, Sénégal gii nu bokk nekk dama ni Sénégal gii nu bokk nekk am na président boo xam ne ba Sénégal de Sénégal ba léegi mosu ñu am président bu mel noonu am premier ministre boo xam ne mosu fee am ma ne Eumeu Sène jàmbaar la. yaa may dégg non non non man waxuma ay mbër waxuma ay président nga di ma bokk tëggal ak ñooñu non non. non non non déglu ma rek dama ne. jàmbaar la xëy na jàmbaar la ci këram. man daal galaa moom mooy mën a kii ba mu bañ pare bilan. yow mu toll nii mu maa gisee yow damaa defe ni xëy na da nga bokk ci beneen côté. mais loolu amagu fi gis nga fii. non déedéet lu fi waay def nit da nga koy xam. xam nga nit bu fekkee dafa jiite fu xaalis di génn mu nekk fa nekk fa kilif fukki at ak juróom génn yëkkati loxoom ni man de seen ñaari dina mosuma ko jël nit ñëw na ba ci man compter xaalis jox ma te jëluma ko yaa ngi may dégg de. loolu ñu na leen. moom laa xam nag ndax te moom moo ko wax te moom moo am ak problème mu état xam ne moom benn preuve jàpp ko. ma ciy dugal nag. parce lan laa wax ne amul Ousmane Sonko wax na daal loo xam ne du dëgg. te bu moom. du génn si génn boo ko naa mais moom mos ta wax lu amut. man ah, mosuma ko xam waaw léegi wax la benn. waaw loo ma ci kanamu a waaw loolu la wax sénégalais Ousmane Sonko jël na déclaration de euh, euh, sur l'honneur mu ne man Ousmane Sonko. waaw juddu béréb sangam. Ah, am at sangam. dëkk béréb sangam. man nee naa leen lii ak lii ak lii laa yor si bien. waaw mu boolewu ci benn kër waxu waxul dëgg mu nëbb ko. non loolu si yaa ko wax man. ma génnee ko laa wax ay këyit ak ay notaire. waaw ma ne ma ne. loolu nga wax noonu daal yow laa nga. mais loolu yaa ko dégg. man ne li ma xam ci moom

mës ta wax sénégalais yi loo xam ne dañuy fermer page bu nga xamante kii yoon nañ ko ci instant parce que am na yenn actualité yi nga xamante ne war nañ ko waxuñu ay waxu kan moo baax ak ku bon ak kuy jàmbaar parce que kuy jàmbaar mënaguñ nga xam léegi mais point de vue am la ba tey rek Aliou respecté ko peut être. non mais d'accord naa mais man aussi damay dama dama naan. teel naa joxe bilan daal bilan daal galaa ñu koy xam fii ak ay diiru jamono ñu xam. ndax liggéey na waaw ne ñu waaw waaw li wax nag dara euh, waxtaan la rek te dëgg rek. xëy nag xool xool bu féetee ak soutenance projet la mais fu mu toll nii kenn wónagul wax. ndax liggéey xam nit daal ci li nga passé teel na def évaluation xam nit ci li nga passé ñun ay sénégalais lañ. dara ñoru fi bañ koy màcc yaa ngi may dégg de xanaa ko soxla loolu. dara ñoru fi bañ koy mais dama ne la. ñun ay sénégalais lañ am lu ñu fekkee voilà voilà waaw Birane euh, justement euh, mhm. ci transport sax euh, la ñuy ñëw avant ñu ñëw ci actualité mhm. ak sport Cheikh Tidiane Gomis nga wax ci li nga xamante ne moom mooy accident de la route yi mhm. yooyu nga ñëw pour waxtaan ci ak Birane ñu bàyyi la ak moom waaw accident yi mu ngi nii di wéy di law gis ngeen li xew ci Koungheul